mbokki jullit yu tedd yi nekk ci gox yu fasantikoo yi ci fu ngeen mun di nekk ci àdduna bi rek maa ngi leen di boole ti juróomi baat yi ñu yàlla boole muy asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di del si waat ci kartanal yàlla fas yéene sof ak yow li ma sosoon ak yow ci julli Tudon la len ci ay njariñam te lepp njariñam xajut ci wenn waxtan bu bokkon ke njariñ ya julli dana kafara ay Lo lo bari bari boy booy julli sa bakar ya ngay lak ba melni ñax mu ñu duggal ci safara na moy lakke alquran wax nako wa aqimi salata tarafay nahari wa sulufan min al-layli inal hasanati yuzhibna sayiati waaye nag zalika zikraa li zaakiriin xasanaat jooja nag lam ca namm mooy julli juróom yi sayyi'aat ca namm mooy bàkkaar yu ndaw yi képp koo xame ne yaa ngi fonk julli juróom yi di ko julli na ko yàlla santaane ànd ak toroxloog teewlu nga yëg nga ñàkk a yëg sa bakkaar yu ndaw yëpp yàlla jéggal na la ko waaye bàkkaar bu mag nag moom tuub rek mooy tax yàlla jéggal la ko bàkkaar bu mag te waxoon naa la kabaa'ir yi juróom-ñaar fukk mat nañ ko loolu Ibnu Abbas wax am na ca beneen téere bu ñu turee alkabair bu téere bu ñaari xaaj la yal na yàlla yokk sëñ Maodo ture aw fan ak wér moñu ko baaxe lim na ca lu juróom-ñaar téeméeri bàkkaar yoo xam ne yu mag la su ko defee nag waaye bàkkaar yu mag yooya bu ma ca mën doon moom moom tuub rek mooy tax yàlla jéggal la ko bàkkaar yu mag ya sàcc ca la bokk fen ca bokk njaalo ci la bokku rambaga ci la bokku rambaaga ci la bokku xas gor ñi di leen wax wax ju bon ci la bokku lek xal li jàmbur ci neen ci la bokku ak trian ci la bokku lek riba ak karta ci la bokku nan sangara ci la bokku demeet yooya yëpp ci bàkkaar yu mag yoyam mom bu la dabé nak serigne touba rasul neena na meuna wër mu ame melaw xalu safara xalu safara ku sob ba dëgg ca wallaay ku tëb ba dugg ci seebub safara dese nga beneen tëbin tëbin wi nga dese nag mooy iqlaaxu mooy génn place ba ba ca tegu tamit ku ca dugg da nga ko réccu ana dama ala ma faata ñëw waaye tamit boo ca xasee dugg xawma ma walay lakkaat waaye dunu dunu wii wa niyatu allah yaxuda ila tan fi ma baqee min umrihi ñëw nga door a dabaatal nag yàlla passé loola boo xamee rek ala kulli haal tuub ga yàlla nangu na ko waye tu ba pare sax di sik sàkkanaan yalla nanguna am nangut fa la bàkkaar hem fa la bàkkaar commencé timit kon ngok dafai fay kafara bakar yu ndaw yi don te tuuboo ko waaye bàkkaar yu mag ya mom tuub rek moko fi meuna a mok montagne ñoyam montagne bu xasse taxaw jëlal pik rek nga nga nga gor ko wala nga uti oto yooyu ñew rasé montagne ba waye nak dara mënu ko fa jëlee lool lola ko kooka mooy te nag bu mag moom montagne beneen bi wax naa la alquran kon inal xasanaat yuzhibna sayyi'aat danaa la wax hadis buy tekki ne julli juróomi ku ko fonk rek sa bàkkaar yu ndaw yàlla jéggal la ko doon tuuboo ko yonent bi wax ci hadis asalawaatul xams wal jumuatu ilal jumua kaffaaratun lima baynahunna maa lam taxsal kabaa'ir kooku muslim moo ko andi mu ne daal julli juróom yi day kafaara bàkkaar yu ndaw yi bo julé juma ba juma del siar nga julli ko bakkar yi fa dox yépp ci ndaw yalla na la ko feek dëkkaloo yu mag yu mag yi moom wax la ko tuub rek mo ci man dara kon julli yonent bi mi ngi koy ak ben dex wala ben piscine bu nek ci kenn ci buntu kër yi kenn ki ñun mu ne waaw ko yoro piscine am bët bu nga sangu ca yoon ndax da nga tilim sahaba yi ne ko déedéet do tilim di mu ne ah kon nak kuy julli-julli juróom yi di ko def ca waxtu ya mbooloo ma sàmm ko toroxlu ya na la wóor ne doo xam bàkkaar ndax tilim boo tilim diggante tusubaar ak tàkkusaan boo jullee tàkkusaan rek mu set diggante tàkkusaan ak timis boo jullee timis mu set timis ak gexe boo fa boo jullee gexe mu set timis ak gexe tamit ak fajar nga julli fajar tamit mu set kon nag araaytum law anna nahran bi baabi ahadikum yaxtasilu fiihi kulla yawmin xamsa maraat hal yabqa min daranihi shay'un qalu la yabqa min daranihi shay'un kooku yonentu bi sallallahu alayhi wa sallama moko ko wax mu ne nag wala piscine bu nekkoon kenn ci yéen ca buntu këram bët bu seen mu sangu juróomi yoon ndax dana tili ñu ne ko déerit mu ne kuy julli julli juróomi noonu la mel ya naa nit ñi ñi gën a lu ñuy sangu ñaari yoon te seen yaram yaa nga set wecc kon kuy sangu yoon tilim kon julli juróom yi dafay kafaara bàkkaar yi ba mu waxee loola nag ba hadis bay jeex mu ne fa kadalika mislu salawaatil xams yamhullaahu bihinal xataaya hadis bii ma wax la nag alquran dong nga ko gën a wér buxaari yoog muslim yëpp ñoo ko indi dañoo ñoo gën a wérle hadis ci ruwaat yi te loolu muttafaqun alayhi la ba tey ku mel ni solo nañ ca muslim ca say womba mu indi hadis boo xam ne Ousmane Ibnul Affan ko déggee ci yonantu ba mu ne yonantu bi wax ne man de Ousmane ne man de dégg naa ci yonantu mu ne xamul benn nit koo xam ne julleeg farata dana ko fekkee mu rafetal njàpp la toroxlu matal rukkooya lu dul ba dana kafaara ko la ko jiitu woon ci ay bàkkaar feeg indi hut bàkkaar bu mag kon nag moo tax Omar Ousmane ne sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ma min imriin taxduruhu salaatun maktubatun fa yuxsinu wuduaha wa xusuaha wa rukuaha illa kaanat kafaratan lima qablaha min adunub lii xadis la muslim moo ko andi su ko defee mu bokk ci xadis yi Usmaan ya kon xadis bu wér di tegtale da kuy topp julli di ko rafetal di ko matal sa bàkkaar ya yàlla jéggal la ko kon nag julli foor googu mu foor a tax yàlla digal nañu ko ci juróomi xanam digal nañu ne nañ ko taxawal moo tax mu ne wa aqimu salaata digal nañu ne nañ ko wattu moo tax mu ne xaafisu ala salawaati digal nañu ne nañ ko defee ca mbooloo ma moo tax mu ne war ko ma raakiin digal nañu nañ ko def ànd ak laab ak ndox suñu amee ngànt tiim moo tax mu ne isa qumtumoo ila salaati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiqi yàlla da digal nañ nañ ko taxawee di ko toppatoo di ko wattu di ko sàmm bañ koo sàgganee waaye tamit nañ ko defee ca mbooloo moo tax mu ne war ko ma raakiin nañ ko def préparé ko njàpp te waxoon naa la njàpp ak sangu jana baak li ci aju lépp ci waxtaan yi paase yàlla mu baax mu bëri yërmande mii nag bam ñu digalee julli ci juróomi xanam yi nit ñaak seen dëgër bopp ga def nañu ñeenti xaaj xaaj bu njëkk ba ne yow yàlla ya santaane julli ñun gëmuñ julli julli ñaareelu xaaj ba ne yow yàlla yaa santaane julli gëm nañ julli waaye julli wuñ beneen xaaj ba ne yow yàlla yaa santaane julli gëm nañ julli ñi ngi julli waaye ngisal rek taxoo nit ñe tax benen xaj ba nak na yaw yalla ya santane julli ñun danañ julli ta nga tax danañ julli ci nañ ko bëgge waye duñ ko défé sax ñun niñ ko bëgge ñenti xaj yi yëpp kenn ko ki nek yalla wax nak yaw ba tabal ñett ya safara duggal kenn ka aljana xaj bu ñëk bi ne man gawma julli julli huma ñoña abu jahlin moy seen jitt kula jur ak fo mën bokku soo jullee tut rek gëmoo julli julli woo rek safara nga jëm yaag abi jëlin yéenay bokk benn safara moom mi alquran ne woon fala sadaqa wala salla soo lëggee nag yéen a ngi dëkk safara suñu tuddee saqar safara ay darakaat la bu la gën a jege suuf gën la tàng booba nag quatrième degré ba mooy saqar moom la alquran ne maa salakakum fii saqara ñu ne qaaloo lam naku min al musallin kon ku ne gawma julli julli woo ko mana ya karbo bu yowmal qiyamé ya abi lahab bay bokk fu ngeen dekkee abi jahlin yéenay bokk ma loosement ci safara place loosement bu ñuy tuddé manam sakar kon cité yu ñu tuddé sakar ngeen di dëkk yalla ci yalla musal kon ndeke safara ko gis mu dugg fa ñatt ko fa duggal ku dugg safara bokku ko ñak julli ben motax mu ne maanaam maa salakakum fi saqar ñu ne qaalu lam nakku min al musallin ñaareel ba mu ne walam nakku nutimul miskin mooy li la yàlla jox sédd la nga bañ koo séddale romb néew ju doole yi ci say mbokk néew ju doole yi ju duwut sa mbokk mënoo leen a jox ñam ñi lekk mënoo leen a dimbale yëkkati ay enveloppe di leen jox boo léegi da nga dem safara nu taxamul miskin ñetteel ba nag wa kun naa naxuudu maal xaaidin mooy toog ci gaara place yi mba tok ci sab sal mba tok ci say nit ñi wër la ngay xuus ci deru gorñi di leen yaq ñi la ñi la gën fouf gën la bax fouf nga leni di di wax wax ju bon ci ñom bu wéñu ci dal dé bo liggé safara ngay dem kon safara ku ca dem ñetti mo la fa yobbu ñàkk julli ñàkk joxé ak talal sa wi di ko joxé joxe làmmeñ mooy dal ñàkk julli ñàkk joxé kalis ak maanaam ñam yeeg ndimbal yi boole koog joxe sa làmmeñ yàlla dafa ñoo teeloo suñu ne nañ tëj suñ compte banque yi nañ tëj suñ compte banque làmmeñ yi te tijji suñ compte banque yi xalal yi di ko joxe loolu la bëgg tey nag li ëpp ci nit ñi tëj nañ seen compte banque yi duñ ca joxe duñ ca lekk duñ ca lele tijji nañ ak seen compte banque làmmeñ yi di xastee ka jëwee ka yàq der ci ji jamono moom fa mel ni yak deri nit ñi moy hegal garat nit ñi ñi ngi yakante ay der ci facebook yi ñi di yakante der yi ci internet yi ñi di yakante der yi di monter ay photo yu ñaaw di ci jël ay kilifa di leen cay monter ñi di yakante ay der di jël ay son di ko enregistrer kon ji jamono dal montage yi dafa bari ci lo xamee ni nii ca dal de te lu ci bëri boko topé Yo dara du ci dua yooyu yëpp nak day duggal ni safara rek kon wa safara balen laaj balen yalla laajé lu leen fi indi daf ne ko ñett yef rek ñaaka julli ak tej bankap alal bañ ko joxé ak tiji bankap di joxé li de moñu duggal safara amul leneen kon ku bëgg dem safara moytul ma ñett yi fo tollu del julli ta yalla lay tax nga koy rafetal foo toll koo te ne dimbali ko te yàlla tax waaye foo toll tamit sa làmmiñ wii na nga ko ñoŋeel walis deru gor ñi koo tudd ayib yaa ngi ayib yu ko gën a rëy mën naa xam yàlla la suturaal yàlla mi la suturaal nag nga doy loo loola sutura sa bañ a xawi suturaay gor ñi di wax wax ju bon di ko jëmee ci nit kon ñett ñi ñooy dugal nit safara ñooñu ñooy abilaab ak mbooloo xam ma ñaareelu xaaj bi ñu ne yow yàlla yaa santaane julli waaye ñun gëm nañ waaye julliwuñ gëm nañ ne nag julli baax na waaye ñun duñ ko def xalaatuñ ko sax kooku ku ko def yahood ñooy sa ñooy sa njiit ñoom ñi yàlla waxoon ne fa xalafa min baadihim xalfun adaau salaata wattabahu shahawaati fa sawfa yalqawna gayyan mooy ñu baax a fi nekkoon yahud yi ku leen gën a baax ci waxin amut ku leen gën a baax maam amut yaquba seen maam la yonentu yàlla yuusufa seen maam la isxaqa seen maam la kon nit ki nag bu baax lee maam mbaa mu baax lee baay te moom baaxut du ko jariñ dara wax dëgg yàlla du ko jariñ dara soo baax lépp sëriñ te yow baaxoo du la jariñ dara soo baax lee ab yonentu te yow baaxoo du la jariñ dara ndax tilka ummatun qad xalat laha maa kasabat mais wala kum maa kasabtum lu am solo lu ñu war a bàyyi xel la wala kum maa kasabtum waaye yàlla waxut ne qad xalat laha maa nag wala kum maa kasabtum waaye nag dañ fiy nekk baaxle ay maam di ko tiitaroo sam sa maam bëgg koo def entreprise rek di ko dundee sama maam fi def nangam moo taalif téere nangam moo defoon nangam ak nangam karama yu nek nga ko cey wax bay kàcc sax di ca doli ta yow buñ la laaje lo def dara sa def ak mam lu lay ditudu nga nek fi timit di tuddu sa mbax ak bay lim fi def ci ay karama lim fi talif ci ay téré lim fi jangal ci ay nit lim fi tabax ci ay jakka lim fi formé ci ay dara buñ la laaje waaw yow nak sa bay gannaaw bi defé li lo def nga ne tous lu muy jëriñ lu muy jëriñ laha ma kasabat wala kum ma kasabtum yow lo def ta yow mi bo fi nek di titaro sa baxi mam di titaro sa baxi bay, di ko titaro ba de, sa dom ñew mom lu muy titaro xanaa mamati mataram lay titaro waye yow du titaro yow bo fi amé sët du titaro mamam ta yaay mamam amo fi amo amo amo tiitar bu ñu mën titaro so amé dom du la titaro ndax defoo fi dara motax ñu bari ñi leen di jéggi rek far di egg ca mam ya bayyi far ñepp rek kon. loola ñii ñëpp boo leen baaxlee te baaxoo lu la jëriñ dara loolu la alquran wax su ko defee ne kon bu ñu yàlla baaxee ñi baaxi maam baaxi ay baay baaxi ay sëriñ baaxi ay yonantu nañ góorgóorlu jéem a baaxee ke seen baax ga loolu rek moo ñu mën a jariñ waaye di tiitaroo seen mbaax ga rek bay kàcc di ca dolli sax bëgg koo def entreprise di ko dundee rek ak bëgg ñu fonkee la ko du la jëriñ tus kon yahood yi kenn gënu leen a baax maam yàqoobaay seen maam kenn leen a baax baax maam yonentu yàlla yusufaay seen maam waaye nag dañoo parewutoon baax ci seen baax ga moo tax du leen jëriñ dara xëllëg safara lañ jëm moo tax alquran ne fa xalafa di baadihim xalfun xalfu foo ko déggee bi sukkoon yi laami rek mooy ku baax ku fi newoon waaye ki ko wuutu nexel ko fi tey ku bon la bakkanam la fi nexee àdduna la fi nexee daraja la fi nexee waaye nexee wut fi li fi bàyyeeg maam ya nexee woon kooku mooy xalfun bi sukkooni laami buy xalafun nag ñi fataa laam nga mooy kuutaay lu baax mooy koo xam ne la baayam neexee woon rek la fi neexee la fi maamam yi neexoon la neexee bu baayam dekki woon mbaa maamam wallahi du sensé du soppi jotaay banam toogee woon moo tax kon liñ foog ak li xam du benn ñu bëree bari dañu foo ne ñuuxu sa maam ak ñuuxu sa baay mooy dimbale ko ca lam neexoon déedéet mbir mi newut foofa jege taxut a jege nit mën naa jege fekk sori na nit mën naa sori tamit fekk jege na bu sa bàyyee sa maam yi ñëwee andi la ci place boo xamee ne nii wóor na la péng ne ñoom seen waajur ya juree wuñ leen woon foofa seen fàggoog seen góor góorlu moo leen fa andi da ngay fexe yow tamit nga góorgóorlu ba wut place boo xam ne fi ngay juree sa doom yi di leen fa yare leen fa màggee du wuuteeg fi la waajur yi juree woon ndax kon yow yokkoo dara te nag nit ki dafa war a yokk war a góorgóorlu te ku góorgóorlu yàlla dimbale la kon euh, toog rek di tiitaroo baax baaxu baay baaxu maam baaxu sëriñ ak jege amul benn njariñ nit jege na fekk dafa sori ñaareel bi ñetteel bi ñeneen ba ñoo ñetteel ba ñoo ne ñun yàlla yaa santaane julli gëm nañ julli ñu ngi julli nag waaye taxoo bu ñu ni ñi gisee daal ñu julli rafetal bu ñu kenn gisut ñu ñu bàyyi julli ga mbaa ñu ñaawal ko loolu ak a bëri na ñoo xam ne tey bu ba nga jiital leen ñu jàng saar wu gudd fatiha ju rafet tajwid ba rafet maxaarij ba rafet rukoo ya mat sujood ya mat waaye boo leen bu ñu wéetee ñoom kenn duñ julli mbaa buñ jullee tamit du rafet saar yu gàtt la ñuy julli nangam ak nangam waaye nag lañ leen jiital mbooloo ma bëri yàlla bu mu bëri ay doomi soxna ñi wan ne ñun jàngkat lañ di wane yu nekk ñooñu ngistar rek moom la alquran ne wa iza aqaamu ila salaati qaamu kusaala lu tax mun a yuraa'uuna naasa waaye wala yaskuruuna allaha illa qalilan ñooñe nag mooy munaafiqiina yi boo lëggee ñooy bokk dugg safara ca nag kal bi gën a suufe si yi gën a suufe lañuy dëkk muy darakul asfal ñu koy tuddee haawiyatu moo tax kon wa ma adraka ma ma ma haawiya ma haawiya mun a naarun kon nag loolu mooy ñooña mooy seen dëkkuwaay yal na yàlla musal ñu ca xaaj bu ñeenteel ba moo ca des mooy ñi nga xam ne nag gëm nañ julli danañ julli ànd ak rukooya mat danañ julli defe ko ca mbooloo ma ci war koo ma raakiin danañ julli wattu ko ci xaafidu ala salawaati dañ ko taxawal taxawee ko ci wa aqimu salaata dañ ko def ànd ak laab ndox bu ngànta amee ñi laab ak tiim ci ida qumtumu ila salaati faxsiloo wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi ah ñooña nag yonentu yàlla muhammad mi ne woon jël naa julli muy lii seddal sama xol mooy seen njiit moom mooma nag ak ñoom ñooy bokk dugg aljana yu ñuy tuddee quartier bu ñuy tuddee firdawsi moo tax alquran ne walladina hum ala salatihim yuxaafizuun ulaayika humul waarisuun alladina yarisuuna alfirdawsa hum fiha xaalidun kon ñeenti xaaj yaa ngoog yow mi may déglu yaa xam ñeenti xaaj yi ban nga ci soo bokkee ci ñi nga xam ne gëmuñ julli julliwuñ koo manti mbubbooti te nangu hoo mu sol la yëgal ne abu jahlin mooy sa mbubbu moom borom falaa sadaqa wala salla boo légee yaag moom maa ko fi saqara qaaloo lam nakku minal musallin soo ne gëm naa julli waaye julli wu ma koo man ni mbubboo ab sëriñ wala maam wala baay te nangu hoo mu sol la yëgal ne yahuud yi sa mbubbu ci fa xalafa min baadihim xalfun adaau salaata wattabahu shahawaati fa sawfa yalqawna gayan so fi nekké di julli gëm nga julli yaa ngi julli ngistal rek ak tiitaro bu la gisé nga julli bu la kenn gisul doo julli ko man di mbubboo ta nango mu sol munafiqin ñoy sa mbubbu mom ngay sol wa idha qamu ila salati, qamu kusala, yurauna nasa wala yadkuruna allaha ila qalilan ta innal munafiqina fi darakil asfali minan nar ta darakul asfal moy hawiya kon xaj baa ngoog boo julli di julli nak di rafetal di sam diko di andak taxawee lok matal ga na nga yëg ne yàlla Muhammad mooy sa njiit nangul mu solla soo liggéey yaag moom yëpp aljana walladina hum ala salatihim yuhaafisuun ulaayika humul waarisuun allazina yarisuuna alfirdawsa hum fiha xaaliduun kon jullee ngoog ci juróomi anam yi ñu ko yàlla sante jullee ngoog ci ñeenti xaaj yi nit ñi def jullee ngoog kenn ku ne ci ñenti xaj yi fan moy nek ëlëk sa loosement ëlëk waxna la ko ñett ya ci safara kenn ka ci aljana yalla nañu yalla boole ci kenn ka te musal ñu ki ñett ya julli mi nak nañ ci góorgóorlu gannaaw buñ ci góorgóorloo ñu ñaax ci suñu njaboot yi ñu koy defee def di defé ci mbolo ma ci jakka ja war ko ma raki la yalla wax yonentu yàlla Ismaayil du ko yàlla taggee wa kaana ya'muru ahlahu bi salaati kon boo nekkee boroom kër maa ngi lay laay biir boo teelee xeewu fajar gi xeexal sa jabar yi xeexal sa doom yi bu ngeen mënee ànd yéen ñëpp ngeen dem ca jàkka ja su ngeen ko mënul ña mën a dem nañ dem ña mënta dem jullee ca kër ga waaye julli ji yow kenn rek bàyyi jabar yaak doom ya ñuy nelaw haa boo lëgee de duñ dem safara bàyyi la aljana yaag ñoom yéenay bokk dem safara ndax kenn ku ne li ngay sàmm bu fanaanee xàll nga fanaan xàll dem huti ko te yonent bi na yaay sàmm bi yàlla jàpp sardi ci sa njaboot gi kullukum raa wa kullukum masulun an raiyati te borom kër yi may déglu yéen a ngi nii ñu ci ëpp danaa njëkk a wax bu nekk ay commerçant ay goubi magasin wala ay bitik yak sa dom ya nek ca wala nga ubbi Sayo ñi nek ca sa yoy xey da ngay xey ndor ak ñom ci sa auto ba ñi doo ko ci dugg ca wala nga xey ñi xey ndor ak ñom kenn ku ne yobbu sa auto ñi yor sen jakarta ya ñi yor sen welo ya waye nga xey bayi len ci biti ci bir kër gi ñi nelaw ñaari fan ñetti fan demuñ tol demuñ liggey ci magasin ya dekk bi yeb degg len ba nga nangu magasin ba jox ko keneen dang ko ba yaayam xam jom magasin bi maa ngi ko ubbi def ci 30 millions jox la ko bëgg nga man manal say rak nga nekk fi ànd ak ñoom di caaxaan di fo nekk fi nanguwoo leen a liggéey nangam nangam da nga torox su ma dee rek nga torox xasaale ko ba xas yaayam ne ko sa yaay xam naa ne lii la fi war a mën a liggéey waaye ànd ak loolu lépp kat bu fajar jotee nga dem julli ji moom muy nelaw kenn du leen dégg yow ki may déglu nekk ci àll ba nekk ca caawa ga soo yoree doom këy war a jëm yee yee yeewi sëll ya wala nga yeewi leen gannaaw bi nga rattee seen yaay boo ci àndut ak sa doom ya ñu jàppale la ca loola yow kenn rek nga dem ñu bàyyi la gétt ga ca sàmm ga bàyyi la ko ca ratt ma hee ku dana la dégg sa jabar yi ku dana la dégg sa doom yi waaye kay boo këyee soxna sa yenu yenu ingu ba ak doom ya topp la ngay ratt ñiy ratt suñ paree ngeen bokk jariñoo ñi yeewi sàmm ñi yeewu sàmmi ba sàmmi mbaa doom ya sàmmi bu nag ya réeree ngeen topp àll ba dem seeti leen waaye ànd ak loolu lépp kat yéen a bokk ca liggéey ba ca coono ba ca gétt ga ak caawa ga la ca aju waaye kat waxtu julli jotee yow kenn yaay julli sa jabar yi sa doom yi buñ julliwut tamit kenn du leen dégg yow baykat bi may dégg yàlla bu yàlla ji nekk taw bu njëkk muy ceebu fekk na ndeysaanam Yakam nga yakamti pour wara ji gerté ga ki taw bu ñëkk bi sa dom ji naaje heewu sang faswaak sa jabar ji naaje yeewu tangal ndekki la dekk bi yëpp dégg leen dang leen xasa xasa xas ba xasaale seen yaay suma ngeen torox bon bañ tàng def nangam ak nangam su ko defee timit nag ah bu ñu àndeek yow nag sa xol sedd ca liggéey ba waaye bu fajar gi jotee kat yow kenn yaay xeew bàyyi leen ñuy tëdd yi nelaw kenn du leen dégg kon li muy tekki mooy ne ndekee sàmm yu bëri yi yàlla sàmmaloo seen njaboot seen intérêt bopp moo leen ñor ba lu ca nar a manqué ñi ñi kaas xuloo bu bu laajee xeex ñi xeex bu laajee saaga ñi saaga bu laajee coow ñi coow bu laajee fase ñi fase bu laajee génne ci kër gi ñi génne la kër gi waaye nag lu jëm ci wàllu yàlla ñorul leen luñ ca mën di sànq seen yoon nekkul ca loola mooy li bëri boroom kër yi may déglu yéen ak may déglu ñu bëri bu añ bi jotee sa waa kër gi bala ngaa ubbi bool bi ñëpp a teew jabar yi teew doom yi teew ku ne dafa gën dem ci bitig bi ñu ne xaar leen ko bala ngeen a ubbi waaw nag jàkkaay yàlla ji balañ koo ubbi yow kenn nga teew buñ teewul nga ne ubbi leen ma dugg yow kenn nga nekk fa ñoom ñëwul foo ko teg sa soxna si bu toggee ñam wi tàng nga kaas léegi-léegi sax nga ne ko dugal ci sa loxo lii ko ko mën a lekk mu tàng mu mu saf kaani nga kaas mu mu maanaam mu saf xorom nga kaas walla xorom ca manki wala mu ëpp nga kaas waaye diina ja moom bu manqué sa yoon nekkul ca kon daal la Seex Umarul Fuuti waxoon mooy dëgg li kulli qatilin naihatin yanahnuhu wa laysa ala diinil muhaymini naihu mune ko de ko ne am nga ko la joyal sa ba moy l'islam l'islam rek mo amul ku ko joyal ab dëjëm fuñ koy maltraiter borom keur ya taxaw sen yoon du ca ne fuñ koy maltraiter njiit ya taxaw sen yoon du ca ne buñ koy maltraiter borom domba tank ya taxaw ken du ca wax ta nak buñ koy maltraiter ñe l'islam fal ba dara yi ya juñ am bañ fonk ne l'islam a tax ñu ca bari sen yoon du ca ne waye nak ñoña ñepp ko ca laal bayam mu gaddu yet nga laal yaayam mu gaddu yet nga laal serignam mu gaddu yet waye hand ak bo gadd bo laalee l'islam seen yoon du ca ne da ngeen rek dana torox waye du jaral kenn mu juk jaay bakkanam jërañu ko ca kenn bo ca jugoon sax di jaay sa bakkan ña nga bokk ak ñu wala njëkk yedd commencé la tuddal ay sik suñ ko xamut ñu commencé la créer ay sik pour bëgg nit ñi bañ la kon deug deug dañoo febar yalla ñu nyu faj yalla ñu yalla fajal bopam yàlla soppaloo lislaam ñu jël cofeel googa suqatal ko ci doom yi suqatal ko ci soxna yi ñu ci bëri xam nañ diine mais seen jabar yi xamuñ diine te nit ki boo amee diine sa jabar amul diine danga ko cee war a naab muy julli su loola jëriñut nga fase ko faseem yar faseem yar yi ñuy wax bokk na ca yi tax ñi di koy def kuy sànq àq yàlla boo nekkee nit ki muy sànq àq yàlla danga ko war a fase faseem yar bu ca yaroo baax na bu ca yaruwut nga faseaat ko bu ca yaroo baax na bu ca yaruwut nag nga fase ko mu ñetteelu yoon baax da saw ju dox seen diggante yore jabar muy meesu nga joxe ca guru yore jabar muy xeesal nga joxe ca guru yore jabar muy emaayu nga joxe ca guru lalal ko nga yore jabar mu tagal tagal guy bëgg a laal asamaan nga kontaan ca sa yoon nekkut lii lépp nag da ko ko waroon a tere su jëriñee baax na bu jëriñu nga fase ko faseem yar yore jabar du julli nga ne da fase ko bu jëriñut nga fase ko faseem yar yar ko ca bu bañ nga fase ko faseem yar loolu la alquran wax bam ne maanaam fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaaji'i wadribuhunna door a ñëw nusuus lañ ci ko wax su ngeen jigéen si ñoom ak ak nusuus rek nusuus nag baat bu sakkan la mën naa nekk dëngee sa digganteeg sa borom kër mën naa nekk dëngee sa digganteeg sa borom yooyu bu amee rek boo demee ca mu fasiru na ya dañ cay boole xàq yàlla ji bu koy sànq da nga koo war a waar bu jëriñee baax na bu jëriñu nga fase ko Seydi Aliou Harasim moo ko pratiqué bi ko Seex na Tijaan yi mayee benn sharifatu di jigéen gu tedd askan baax ak baayam yaag maamam ya doy ko diineem daal manki lool ke julli yaag taxawaay ya, muy waar waar mënu ca dara mu xëy rek fase ko cheikh na tidiane cherif ne ko ah ki la lu koy fase mu ne ko li annaha la tusalli bo de veja ifadatul ahmadiya titre bi la ngay rek mu li annaha la tusalli mais sabab bi lol la motax kon koy andak tamunu te and leen a ci moom muy sa dom muy sa jarbat muy sa jabar muy say muy say xarit muy say mbokk and dal gi ca sax ta yalla gërëm ko moy ànd gu jëm ci yalla rek bu leen mën taxam rek kenn ku nekk na ngeen kito fu way mëna dem dem ni ko doon sëñ Abdul Aziz di waxe su ko defé kon nak jawatina tay liñu febarlo am doom yaakar ko am doom mu commencé ubbe ko mëna gënd sa ko ciép mëna gënd xaram tobaski mëna yobbu baye ja makka ci yalla bu nekkon dakaru ñew fekk la ci village ba mo la yobbu makka mba mu yobbu yaaja makka mba mu jënd xaram tabaski mi mba mu jënd saako ceeb bi bu ñëwoon di nelaw nelaw nelaw ba 10 h mba mu nelaw ba midi julliwut suba bayam du ko ñëmé fëgg waxuma la yaayam ana diiné kon ki waron la yaakar yow nga ñak fayda bam far di ko yaakaar te ngaa yaakaar yàlla la ko joxagut mo la yore won bu yalla xëyoon faat ba kanam mu dé yalla la yor waye rek yalla jox la ko gëmeewoo ko yalla dafa guddee ñëw dafay récupéré bu ko hé bàyyi ko mu nelaw lim joxe saako ceeba tax waye bu dem bu wuton dara dëkk bi dégg leen kon nit ñi li ci ëpp gëmuñ yalla holuñ yalla caaxaan rek ak top seen bakkan moy li bëri li la neex ki la neex rek dagay jayante rek ku dajé rek tuddu mbax ak diw ni mu baxé ni mu défé nangam ak nangam lu ci ëpp kàcci kese kalai lay tagg ci mbax bu woné gannaaw jëw la waye rek ragal ma sama gannaaw ma ragal la sa gannaaw rek mo fi nek léegi mo yak conférence yi mo yak gamu yu bari mo yak jotaay yu bari dajé rek taggante bu ñu gannaaw jëwante waxal ma lima baax le ma waxal lima ma baax le présenté sa yu jeex te andi wu fa nit ñi kon geew yu ñu maam yi fakkalon ak bayyi nañ ci gorlu yoon wañ ñu xàllaloon nañ ci gorlu ñu jaar ci su ko defee fiñ bëgg yegg ñi man fa yegg buñ leen mënta dab tamit fekk ñun ña nga tegu ca yoon wañ tegu woon su boobaa yàlla mën nañoo dimbalee ci seen barke ndax walladina amanu wattabaathum zuriyatuhum bi imaanin alxaqnaa bihim zuriyatihim waaye nag defoo dara rek di yaakaar sa baax ak maam mbaa sa baax ak sëriñ lam xàlloon teguwoo ca yoon waa du la jariñ dara kon nañu góorgóorlu yàlla yàlla dimbaleel ñu boppam tëddal ñu ci lislaam bëggloo ko soppaloo ko toppaloo ko xam naa nag bu subaa ci waxtu wi ma topp ma ma sof ak yow li ma sosoon ak yow wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu